donc ak feeling quoi xam nga musique moom feeling la nekk affaire de gain rek feeling dafay nekk d' abord yëg-yëg bi nekk fii ku nekk fil sa morom xam nga pour ngeen mën a liggéey donc man ak moom daal bon pour euh, pour tënk sama gain la quoi waaye sama frère. yomb na nga liggéey ak moom wala. waaye waaye yomb na parce que bëgg na lu baax bëgg na lu baax ku bëgg lu baax moo neex àndal quoi. comme xam nga donc euh, bu amee ay difficulté tuuti ci période job bi la quoi période liggéey bi dinañ discuter dinañ dinañ dinañ euh, dinañ dinañ raak comme xam nga ku nekk gedd studio bi dem mais liñ ci intéressé mooy mu dëpp comme xam mooy mu dëpp te chaque fois ñuy gis résultat bi bu bu track yi génnee quoi voilà mais à part ça nickel. joo wax ci loolu. waaw comme ni mu ko waxee rek liggéey moom yombul quoi xam liggéey bu ne day am pression mais ku ci nekk résultat bi nga bëgg mooy mu baax quoi. waaw. bu ñu ñëwee ci seen sortie album bi tey ngeen di amal ab conférence de presse nit ñi wuyu si leen macha allah ndaka ngeen ko dundee. ça fait plaisir ah mbégte la franchement parce que euh, euh, woote ñu wuy la yombul quoi li naan mën nga louer ay chaise moom mën a louer nit yi comprendre nga donc gars yi moom li ngi leen jox rek lañ lay delloo donc ñun dañu am benn public boo xam dañu yàgg ak ñoom depuis suñu first single sama tante moomu Dof Low ñu ngi ñuy ba léegi fidèle ci lu ñu génnee gars xam nga uti jikko fu ñu wootee dañuy déplacé wu xam nga seet suñu te ñu ngi fu nekk ci Sénégal bi franchement fu ñu mun dem Sénégal dañ fay fekk fan yi gars ñu ngi toog donc tey mënoon na gën a graaw sax affaire bi mënoon na gën a graaw mais ak contrainte yi et tout mooy loolu quoi mais ça fait plaisir de woote gis gars yi ñëw quoi. yéen ñaar kan mooy bind texte yi. ñun ñaa bind ah ñun ñaa ñëpp bind des ma yeewu gaal am benn feeling am benn inspiration ma ñëw proposé ko mun na ko fil mun na ko ba ñu fil wala moom lu mu ci ajouté ñu xool ba mu dóob parfois aussi ñu teg bi studio feeling yi di wàcc ku ne di créer proposé moo ñu waxtaanee ba mu toog mais ñu ñaañu bay bind. d'accord waaw. tey mën nañu xaar ci yéen album bi ñaata morceau la ak ñaata titre lañ ci mën a album bi euh, onze track la ak benn bonus muy douze ans comme xam nga donc euh, gars mun mën nañu xaar douze waaw bon benn album bu social la en général comme xam am na ay thèmes yu bëri yu mu regroupé yoo xam ne dina intéressé population bi adduna bi tolluwaayu jamono et tout quoi jeunesse bi amur aussi quoi comme xam nga parce que love moom mooy adduna te ko xam Cherifou Job sa brain xam leen ci mbëggeel bu neex. lan mooy seen secret ba loo leen génne ni ñi bëgg. liggéey <laughs> liggéey rek sonn ba dee gisoo suñu baay sax doxatul instant bi démb rek ci tournée lañ jugee Lac Rose songaat affaire bi liggéey Diourbel avant-hier ci liggéey rek la nekk te loolay dëgg. il paraît que seen i yëpp ay jigéen lañ. waaw loolu loolu baax. waral lool da ngeen am charisme bu nekk si yéen wala la. man man góor ñi sopp de waaw <laughs> jigéen ñi man. Euh, il fallait que euh, yéen ak am na loolu lañ jot a sekk donc bu ñu ñëwee tey di wax ci Wally lan ngeen ñu mën a wax si moom. waaw nit ku baax la nit ku réel la am nit ku nekk li nga dund ak moom nga ko mën a seedeel bàyyi fa àll nit ku baax la nit ku réel la te nit ku mën lu muy def la musique bi tey ni mu saturé concurrence bi artistes yi defante bi ak yooyu lan nga ñu mën a wax parce que gis nañ Wally Sidi Diop donc foofu lañ ko mën a tënkee. non na gars rek man moom li may wax mooy na gars liggéey parce que musique bi am na fu a dem te yeggu ko fa problème boobu a njëkk a lijjanti balaa ñoo lijjanti problème suñu ñu mën a wax peut-être ci sa dernier mot. waaw mais Diop wax na lépp ah détail moom bon àndul ak liggéey bi quoi ñun en général xamuñu sax luy xew côté boobu ah franchement ñun boo ñëwee géej waaye fekk ñu si Daliou Sow ñun ñu ngi suñu village toog fa suñu studio fa la ne suñu le fa la ne ñun bu ñu génnee farata la ñuy dox comme xam nga après ñu ngi waa suñu studio tëju information yu bëri après la ñuy dal événement yi ba day am ba pare ci yenn affaires yi ñun après lañ koy yëg mais li am solo rek mooy ne gars yi liggéey fexe porte musique sénégalaise bi yóbbu ko fu ne xam nga moo gën détails yi quoi ñun moom wax dëgg yàlla xamuñu lu xew. à part à part Wally pare ngeen ak pour liggéey ak yeneen artistes yi aussi. waaw à la boo xam ne sénégalaise la mais États-Unis lay live ñu gis muy def lu nice ñu ne pourquoi pourquoi pas ñu defal ma benn affaire proposé ko Sénégalais ñu xam ko Samba Peuzzi aussi invité nañ ko ci album bi donc euh, beneen artiste boo xam ne fil nañ ko par feeling mën nañ ko def ak moom quoi. ñu ngi lay jaajëfal. jaajëf yaay booy yegale ko fee. d'accord loolay dégg. lay nuyu. maa ngi fay waa seen Sénégal 24 waaye. sa diggante ak ñoom Serifou parce que gis nañ seen demalante dikkalante bi woote nga bu yàggul ñu wuyu si la ñu woote tey nga wuyu si leen relation bi lan la. waaw mais c'est mu nekk fan depuis aux États-Unis di déglu seen musique lu yàgg suñu benn ami en commun moo ñu boolee depuis lors ñu jàpp ma jàpp voilà ñu indi leen seen sama soutien modestement rek moo fi voilà. Moussa Versay doon nit boo xam ne ñu bari ñu ngi koy commencé découvrir à travers li nga xam ne mu lay def nekk benn styliste boo nga xam ne amaana Sénégal xamuñu ko woon mais léegi ñu ngi koy commencé découvrir nga ñëw euh, wan nit ñi sa bopp ubbi say boutique pour gën mën a wan sénégalais leen. voilà Moussa Versailles bi nekkoon États-Unis ñëw na pour liggéeyal réewam lu la jaral nga bàyyi États-Unis ñëw installé wu Sénégal. voilà ma états ba léegi j'ai une entreprise mais dama xalaat ni rek ni Sénégal jeunesse bi ñu nekk à l'étranger foog ñu ñëw ku si nekk su amee indi fa pierre une modestement indi pierre am édifice bi ñoo mën a defar Sénégal suñu bopp du gouvernement bi du keneen su ñëpp ñëwee jàpp si incha allah gëm naa Sénégal day dem quoi c'est pour ça que ñu ñëw ubbi déjà une boutique euh, année passée ñu ubbiwaat beneen à Saly juste pour euh, participer développement suñu dëkk mooy fi nii quoi. te mën nañu xaar yeneen boutique yoo xam ne Moussa dina ko installé ci yeneen régions yi. yàlla baax nañ a leen ma rek projet bi yaa ngi ñëw te liggéey moo ñu tax a jóg bëgg nañ daal Sénégalais yëpp gis seen bopp incha allah. sa diggante ak Ndeye Marie nee mooy couple de l'année parce que euh, ñu bari parce que da ngeen nuroo euh, sa diggante ak Ndeye Marie. waaw ah, mais sama femme xam naa bëggeel bee foofu rek loolu la mais sant yàlla. mën a wax ci sa relation ak Ndeye Marie. waaw mais c' quelque chose de personnel c' est ma femme sama jabar la sama soxna la mooy jàppale si fépp nag di ko sant di sa famille tout le monde ñëpp voilà. mu nekk artiste est ce que yomb na tey jii pour yéen ñaar seen artiste avant tout nit nga. voilà tu as une une vie privée loolu la ñu gën a fësal après nag leneen nag liggéey la rek ma ko si soutenir à 100 pour cent mu may soutenir voilà on va essayer de travailler liggéey rek incha allah. mu góor yi nga xam ne bu ñu fekkee seen jabar ci métier bi bëgg ko ci génne après pour créer. non man man je suis de vingt ans génn naa je suis dans le milieu artistique xam naa nu muy demee mu dem demal boppam liggéey boppam lu dara ne sonn nga mais nga wax ak sant Chérifou Diop sama kay yi nga xamante ni jënd nañu ay album yu 100000. jënd ay album yu vingt cinq mille jënd ay album yu dix mille pour jàppale sa ay tool